dañu dajewaat rek euh, ci Ngoundiane ak euh, dajale directeur d'école yi ci teewaayu sous-préfet ak IDEN inspecteur de l'enseignement et de la formation UFE autant pour moi pour jébbal leen euh, fourniture scolaire yi njàng moom ku ko wax wax jàngkat wax jàngale wax fa nuy jànge ñun nak ci paj bu ñu sété en tant que commune ñang euh, ak ñangalé dafa bok ci compétence yi nga xamné réew mi daf ko jagleel gox yi ak gox goxaan yi euh, lu mat fukki atangi ni ci commune Ngoundiane bok nañ ci ño xamné ci ci commune yi école du sax joxé nañu fourniture yi euh, tradition bobu mom lañ doon magalat tay génné lu mat fukki million ak genwal ak ñaar ak genwal ci wàllu fourniture euh, muy euh, fanweeri junni kaye fukki junni ak benn ci ay bic ay kit géométrique craie euh, boo ko xaymaa muy fukki million ak ñaar ak genn wàll waaye laata loolu dañu jël koo xam ne dafa dugg ci école yi pour pomper leen nettoyer leen loolu rek fay nañ ci ñaari million ak genn wàll boo ko dajalee muy fukki million ak juróom ñu jagleel ko l'école yi pour bésu trois bu jotee maanaam alxames bi di ñëw jàngalekat yi ak xale yi jàng bu ñëwee fekk conditions yi remplir pour ñu mën a tàmbali fourniture yépp na amul benn doomu ngunjal bu nekk ci l'école primaire boo xam ne dinañ la laaj benn kaye wala ardoise lépp commune bi jënd nañ ko loolu mooy sunu cër nettoyer salle de classe yi désinfecter pour yi wax bu conseil municipal Ngoundiane bi ma jox katan ma def lolu waye état bi nga xam tamit jox nañu ay moyens ci walu fonds de dotation pour ñu mën ci jël ay patch jënde ko euh, véritablement euh, euh, fourniture yoyu muy lo xam dañ ci sante yalla parce que ñun dañu baaxu am résultat yu yo xam mo gën ci département bi waye daw bo leen fàttalikoo exactement le 27 septembre fi la ñu daje di def cérémonie de remise waye biñu ñu fourniture yi xawoon naa ñaxtu ñaxtu parce que dañu bokk ci communes yoo xam ne ñoo ëpp li ñuy joxe ci fourniture waaye daaw résultat yi taxu ko woon a demee noonu ma amoon ci mbetteel amoon ci naqar parce que kuy investir nag danga bëgg am résultat résultat yi baaxul woon yàlla def na nag ñu tombe ñu am inspecteur bu bees mu ñëw jël ay engagement enseignants yi tamit mettit lu résultat yi ñu jël ay engage bay ba yàlla def na tey résultat yi wax dëgg yàlla jële nañ ko 42 pour cent ñu ngi 49 pour cent mu baax na waaye bëgg nañ mu gën a yokk ba ñu yegg ci 60 pour cent ba 70 pour cent su boobaa la ñuy mën na kat ne atteindre nañ suñu objectif ni mu ko waaye wax dëgg yàlla ent daaw ak ren am na yokkute bu baax a baax a baax te ñu ngi ciy sant yàlla di encourager directeurs yi di remercier IFE di véritablement gën leen ñaax ñu góor góor li ci des nag mooy xale yi euh, euh, ñu bëri bu vacances jotee dañuy dem ci ci ci ci seeni mbokk ñenn ñi dem di liggéeytu waaye jot na képp koo xam ne le trois war nga jàngi nga ñibbisi si weekend bi ba nga xam ne alxemes da nga mën a dem jàngi donté véritablement da ngay ñëw ak sa cartable nous ñu jox la bép fourniture way way lolu yomb na kon ñi ngi ñaax parents d'élèves yi ñu def lu tout ba dakkal vacances pour ba xale yi mëna na ñëw jàng. ñu ngi ci école bi le premier pour les enseignants le trois pour les élèves euh, ñun disposition yu jël waxtaan nañu ak communauté yi collectivité territoriale moy le maire les groupements féminins les directeurs d'école les codecs nous ñëpp waxtaan nañu pour ñu euh, def semaine de la propreté avec def nañu CRD au niveau de Thiès ñëpp pour ñaax ñëpp nañu nettoyer école yi nañu nettoyer salle de classe yi ngir euh, jàng bi le 3 octobre inshallah allah. ngi maire yu département de Thiès nous roy ci Mbaye maire de nous je suis le premier maire ci 12 maires ci département Thiès bu njëkkoon jox des fournitures scolaires ren aussi mooy le premier maire bu njëkk joxe fourniture scolaire pour ñu ubbi tey jàng ci école yi mun a nekk euh, maa ngi ñaax yeneen maires yi nañu roy ci moom nañu fexe ba joxe fourniture avant le 3 pour njàng bi mun commencer lu ñuy wax ubbi tey jàngatey mun a nekk effectif ci école département Thiès yëpp. ci wàllu mbirum résultat yi maa ngi fekkoon euh, Thiès département ci 49 pour cent léegi indi nañ ko ci 50 euh, point 11 pour cent euh, danañu waxtaanaat. si suñu biir danañu waxtaanaat ak directeur d'école yi dañu leen gën a ñaaxaat pour ñu pousser résultat yi ndax ñu am lu raw lu ñu am ren. Euh, jàngalekat yu manqué juróomi at a nii Thiès département musul am ci enseignant yu bees yi te am na ay enseignants yu retraité am nañu feebar am nañuy gaañu euh, mais amul remplaçant euh, Thiès département a un besoin de trente-cinq enseignants vingt français et dix arabes waaw wante loolu du ñu tere liggéey dana ñu def tournée xool naka la ñu mun a def ci euh, école yi pour que classe yëpp fonctionner pour que ñu am benn gàllankoor euh, ci njàngale mi danañ def ay classes multigrades danañ boole s'il le faut même aller jusqu'à cours multiples pour développer pour jàngale ndax éducation bi bañ a suux enseignants yi ñun danañu def tournée de rentrée nous euh, ngi ñaan enseignants nous nañu rejoindre seen poste dès le 1er octobre inshallah. Euh, le trois élèves yi ñëw topp si et ñu dugg ci biir classe yi ñu jàngale képp enseignant bu absenté ñun danañu def suñu warugal donc danañu euh, def lu ñu war a def en tant que corps de contrôle mais dañu ñaan enseignant yi ku nekk na respecté loolu ñëw ngir njàng Sénégal njàng département Thiès gën a développé